ñu teew fi nag ci turu euh, waa Jumaay Touba yi nga xam ne Cheikh Mamadou Basir baaxoo na at mu jot buñ tolloo fii ci koor gi mu yëkkati ay teraanga jëmale ko ci ñoom muy ñi nga xam ne moo jëm ci ñiy jàng kaamil bi kaamil Serigne Touba bi nga xam ne ñaar fukki nit ak ñett la waaye sëñ ba sax yëmut foofu waaye ñaar ña leen toppatoo sax da ko caa boole muy fanweeri nit muy ka leen toppatoo ak sa safoor ba mu def ko kenn ku nekk mu yëkkati la mu lay jox. noddu noddukat yi tamit ñoom ñëpp kenn ko mu am lu mu yëkkati jox la ko magi jumaa ji moom yëkkati lu mu yëkkati jox jox leen ko kon ña nekk ci jumaa ji di ci yëngatu di imaam yi ñi jàng kaamil bi noddukat yi magi jumaa ji kenn ku nekk sëñ Bas lam lam lam yëkkati yëkkati na ko teg ko sa loxo ngir feeñale ko yéene ngir liggéey ba nga nekk te muy bu rafet kon sëriñ ba jëf juré ji nga jëf ci turu ñooñu nga xam ne ñoo seq jumaa ji ñëpp ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm dina ñaan yàlla sunu borom kàttanal la baloo ci mën te boo liggéey nga mën lu ko kawe dëkk bi ñëpp njabooti sëriñ bi lañ waaye bu ci amoon ñu beru gën a nekk njabootam dañ naan mooy donga yi ci daara ji ni kon ni nga xam ne yeneen sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna lillahi ahliina suñ borom dafa am njaboot ñu laaj ko ñan mooy njabootu suñ boroom gi mu ne ahlul quraani hum ahlullahi wa xaasatuhu ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi ñi jàng alquran ñooy njabootu suñu boroomu boppam gi noonu it la xadis ba waxaate ne mbindeef yëpp njabooti suñu borom lañ waaye ki ci gënal suñu borom nag mooy ki ëppal njariñ njaboot gi te yaakaar naa ne lii njariñ mënu koo weesu te yëg nañ ne du fii rek lay doon kon dama koo jël rek ci wàllu diine bi waaye defe naa ne eh, social moom c'est humain moo doom aadama ñoo ànd eh, dañ koy soxla ci fépp kon képp ku koy taxawee eh, tawféexi suñu borom la kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci taxawaay yii di ñaan suñu borom gën leen a kàttanal gën leen a dolli tawfiix teyit def la ab royukaay ci ñi ko yàlla man loo ñëpp ñu gise ko ci ni nga koy defee te roy ca ndax kon loolu dana gën a baax ci njaboot gi kàddu yi nga xam ne moom ni jottali nag ñu ngi koy jottali ci turu commission sociale bi nga xam ne eh, seen wàll ci ci ci lu demee di rekk la ndax Touba ci kanam lépp li muy def rek ci sociale la Touba ci kanam ci boppam social la waaye day mel ne sociale bi ñuy def ci dëkk bi moo ko tax a jóg dëkk bi nag ñaar moo fi nekk jëmmi dëkk bi ak ñi dëkkee dëkk bi bu dee tubaa ci kanam réalisation yi muy def ci dëkk bi la koy def mooy lu mel ne tabax ay post santé éclairage public adduction euh, do ak yu demee noonu waaye bu dee ci social bi nag ci jëmmi nit ñi la jëm te loolu nag doon mbir moo xam ne dafa ñor Cheikh naa si Ahmadul Khadim ba boo demee ci Masaalikul naan def na ca bunt boo xam ne euh, li ko tax a jug lépp mooy jël sa alal di ko dundali ci yoon yàlla fam tàmbulee woon buntu ba rek doy na sëkk muy dafa wax ne sarxe ak dundale sa alal ci yoonu yàlla mboolem yiw yi ci àdduna yëpp ci mi ñaar yooyu ama tasadduqu maal infaaqi fa jamaal xayraat bi tifaaqi boo demee ba ci biir sax ba ngay wax njariñ la di wax ne bis penc bu ñu demee ba nga xam ne euh, sunu borom wàcc na jant bi ba mu tiim euh, ruu yi nit ñi euh, yuuru nit ñi ba ku nekk tëlatoo seen seen sa bopp lu sa bopp su boobaa day am ku yëkkati kàddoom wax ne ana ñu doon liggéeyal jullit yi bu ne ñoo ngi nii mooy leen dem leen yéen bokk leen ci xar-xarloo bii dem leen àjjana ci lu benn coono mu mel ne nag sëñ Basiiru mu sëñ xaarim awaba bi nag jamono ju nekk ci loolu doo nga lay dox ñun nag mën nañ ci seere ndax oma naa ilaa bi ma alim naa euh, li liñ ciy seere lépp luñ teg suñu bët la waaye buñ ci tegutoon suñu bët sañ nañ cee maanu waaye lii muy def doonul jëf joo xam ne da koo tàmbali léegi rawatina ci Tuubaa ci kanam yaakaar naa liggéey bu ëpp solo bi nga xam ne moom lañu doon def ci jamono yi ci ginnaaw muy jëm ci wàllu assainissement bi ñu ko doon wax opération defar yoon yi lim ci dugal moom sañ Bas nga xam ne ci moom la jaare jaar ci samay loxo ñëw ci Touba ci kanam yaakaar naa li ko li ko gën gaa néew man na 50 millions ci loo xam ne ci loxoom la jaare ñëw ci ñun kon ñu ko ci sant bu baax a baax wàllum jël alalam tamit ci ci ko jàppalee daara yeeg ak néew ji doole yi jamono ju nekk mu koy def lii ba ba koor gi tàmbali rek moo woo boppam ma ne ma am na lu ñu bëgg a barkeeloo jëmale ko ci ñi nga xam ne ni ñoom la seen doxo jotu seen ginnaaw loolu nag day mel ne du laa xarwa du kimtaan ci sëtub Cheikh Mamadou Lamine Baara sëtub Cheikh Ahmadul Khadim bu nekkee ci lu mel nii ndax day mel ne rek da cee wuutu sëriñ bi ndax sëriñ bi moo ñaanoon boromam ñi nga xam ne dañoo dëkkee dëkk bi seen loxo jotu seen ginnaaw mu féete leen fi leen seen waajur féete kon daal sant daal munta weesu cant ndax ku defut lu jar cant kenn du ne la jërëjëf kon nag suñu Basiru jërëjëf sant nañ baax a baax a baax sëriñ Bas sa pepp ceeb yi ni mu toll yàlla na doon xéewal suñ borom sotti ko ci sa kaw te boole ko ñi nga xam ni ñoom la yàlla may matuk nangu ko ci darajay Cheikhul Khadim maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. mel na ne kat jëf nga jëf joo xam ne jëf ju matale la te yàlla kese rek ku xool gis ni nga ko defee xam ne yàlla kese moo ko lal kon nag sëñ bi loolu ñun ñëpp nga ko defal. ñun ñëpp nga ko defal ndax mépp mbokk fu mu nekk di fa def lu baax mbokk yëpp la ko ko defal ndax taxawaay ba mu taxaw kenn ku ne ñun waroon na la kenn ku ne ñun xaj ne yéene nga ko moo xam nga kattan gi moo xam amoo kon bu ko defee defal nga ko ñëpp kon nanga xam ne ñu ngi lay sant ci turu mboolem mbokk yëpp sax laay wax ci turu mboolem taalib bi yëpp ndax taalib googu leen jiital di la ñaanal yàlla rek sa kattan gën a yokku ba li nga def nga gën koo mën bu dee ci beneen côté bi itam sa diggante ak président de la république ñëpp xam nañu mu sa xarit xarit gu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bàyyi woo ba mu gañee ba ne ci au pouvoir ngay daw di ko di ko song danga nga ko da bokk ña ko doon xeexal ba sunu borom dogal mu dikk au pouvoir nga nag mu ànd bu rafet muy sa xarit kon lii aussi boo ko defee jëmale ko ci néew gi doole yi te moom lépp loo xamante ni bii mooy jafe-jafe ci réew mi moom moo war a saafara kon loolu aussi moom ci boppam. moom lañ ko defal ko defal loolu mooy li moom nga ko defal ndax lépp lu lépp lu lépp lu baax la waaye def ci réew mi rek moom nga ko defal ndax moom la war kon ci côté boobu itam ñu ngi la ci sant di la ci di la ci gërëm di la xam ne lu ñu yëg la lu ñu gis la te lañ ki lañ jub lépp itam xamees na ko kon daal ñu ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp du